léetoo mais boobu xam naa ne ñàkk daf maa minimiser daf maa xeeboon waaw. bu yàggul dara sama doomu ndey la maa ngi koy nuyu au passage ñàkk. Mm-hmm. ma jël góor a soog combat bu am coow. combat bu am coow. stade bi di riir. waaw. góor dañoo dafa dëpp kaat api ma yëkkati sama loxo moom mu continuer action. combat su ma juumul est-ce que prince tegu ko woon. combat prince moo ko tëggoon daal su ma juumul waaw. mu rëpp mu rëpp def bos boobu dama ko amaare bërekat yi xam nañ lan mooy amaare waaw. arbitre jox ko victoire man tamit ma ñëw. man dama si dafa dafa def kaat ab bi may jóg comme que moom moo ma gën a diis te boobu man surux naa ba pare moom mu profité jóg la ngaa ma man tam ma def kaat ab am na ñoo am ne ay nitu làmb lañ ñu ngi fi di ma di ñu seetaan ñu ngi lay seetaan boo leen posé waatoon question ci combat bi ñu booy moo ko daan ay nitu làmb mun waaw mun naa sax lim seen tur wallaahi azim ñu joge foofu noonu ma jël Saalum Saalum jël Tidiane Faye. nga jël Saalum Saalum. après Goro Sock lañ parce que recours bi dañoo amul woon vidéo kii waaw vidéo làmb ji pour def recours bi quoi xam nga rek làmb moom yaa gën a xam. loolu laa mën a jàpp parce que man fi ma waroon jaar ak ñi ma waroon waxal pour ñu dugal recours waxoon naa ak ñoom jaaroon naa foofu. vidéo bi benn kii moo joxe woon ak angle bu leer bi muy 2S. moom rek moo joxe woon angle bi góor a soog rëppee ne kaat ab ñu ñu doonoo ko nii après laa ko am. mu nekk nag lu ma métti sama àdduna man. combat boobu. la combat boobu noonu laa jël keebaa lañ ci daj. combat boobu dama doon na bay daanu barki Sëriñ Bamba waaw. nga Saalum Saalum. Saalum Saalum même. waaw waaw. Saalum Saalum daan kan. Saalum Saalum maa ko daan. mais man xam nga jox kenn lu ma jaaxal. Mhm. mais jox ko kon booy dañ laa yab rek. booy dañoo am palmarès booy amuñ palmarès booy bëre nga fi dindeelu amuñ palmarès ñi ma bëreel bëriwuñu ñoom man bi may bëreeg jiili mbay bu faas rek boobu booy boo ko fi joxoon mu bañ. jël arbitre dafa soufflé mu accéléré ñi may nit ñi seetaan nañ laa mu accéléré sama ko jël bi ma ko daan mbër daan gu ko fi mbër. laajteel wala nga seetaan vidéo YouTube déggoo ma de jël bi ma daan jiir mbay nit daanu gu ko fi mbër ci làmb gisaguma ko parce que jëlu mbay daf maa yéeg ma pivote ak moom. xanaa làmb moo waaw làmb moo demee nii. après nga yàlla dogal ma am ci kawam. Mhm. waaw. nga Lamsaar. Mhm. samay doomu ndey lañ. waaw ma nag. <laughs> <laughs> bi ma jógee ci Tidiane ma jël fëgg la. yaa Tidiane maa Tidiane Faye. Tidiane Faye daan naa ko ci biir géew bi mais. arbitre dafa ne dafa jugé woon nécessaire na site amul quoi. léegi waaw Tidiane Faye loolu vidéo yaa ngi Fatou yow Fatou. dañuy waxtaan tey bu ñu repéré wu ci vidéo ndax naa kañ da nga repéré ci vidéo. waaw ah, mhm. nga moo tax da garaaw de ah garaaw trop. billaahi. leer ah lu leer laa la wax da ngaa war a ci vidéo nga ne doo repéré wu ci vidéo. Euh, Tidiane Faye daan yàlla man la dogaloon moom ndam ci kawam. Mm-hmm. waaw ci laa jóge ci moom dem ci fëgg la fëgg la waaxu ma kay. waaw. moo ma jaaxal nag de. billaahi. parce xam nga rek boo nekkee boo nekkee ndaw bëre di sa métier. Mm-hmm. te mu moo dal mbëru Kër Masaar yi. Mm-hmm. te amuñ benn ndey ba nga xamante ne xam nga dinañu dinañu tracer yoon boo xamante ne xam nga comme yenn mbër yi nga xam ne da ngay bëre kii nekk doomu mbër ñu tëbal la xam nga taxawu la ba nga yenn kii nga échelonné. waaw. waaw yow fii am na fii doomu mbër yi ñuy coow fii nii. tàllal leen micro nga laajte leen ñaata combat lañu am. Sa Thiès. Balla. Hmm. waaw. non suñuy morom laa wax xam nga ay ñoom Sa ñu ñun leen quoi. Ah. mais Sa ko njëkk a dugg ci hmm? laa ko njëkk duggee ci làmb. mais mooy kii bi. mooy booy bi. mooy bu muy bëre bëre wu Uh-huh. kon da nga ko wax Salif moom la. nga laajte ko. fuuf. Fadima booy gars yi ñoo nekk fi naan ay xale la yooyu noonu rek. Uh-huh. mais ñun ay booy lañ suñuy waajur xam nañ ne sax ñun ay xale lañ. buñ demee ba nekk yenn mag yi dañuy bàyyi laamu seeti leneen am nañ métier. waa Diène Kairé. waaw ah, Diène Kairé dañ ko tëbal Diène Kairé ñoo bokk génération. Diène ko tëbalee xamoo ko waaye lan la prouvé. Diène ay morom dafa bëri. waaw Diène prouvé wul dara. yan moromam. yan moromam. ñan la fa beneen daal. waaw ah, Diène ba muy bëreeg Bawol boobu Bawol laa xam fu muy rek tànkam. Euh, te Bawol bu doon palmarès ak palmarès Bawol du jël Diène. booy bawol. yaa ma dégg. waaw yéen ñun ñoo ay morom ñun ñoo débuté Ndoo soo ko laajtee moom dalay wax 2011 la commencé bëri arène. waaw parce que moom doomu mbër la. yéen mooy bi am yéen ban la ah, hmm? dem États-Unis entraîné ji. ban at la yàgg na. yéen ba muy dem États-Unis gis nga ni mu tolloon ak bi mu ñibbisee. mooy yooyu noonu ko foog ñun bu ñu amoon dinañ nekk fii kon ay ñoom Balla Gaye la ñu war a bëreel. suñu amoon mooy yooyu noonu. parce que xam nañ ne li nekk suñ bopp bi ci bëre nekkul ci ñoom kenn wérantewul loolu. Diène dafa mën bëre. non loolu kenn wër meeg wàllu moyen la ñuy wax waa. Ah, moom moo prouvé ba dama kii woon boppam. Diène yóbbuwul boppam États-Unis. waaw. Hmm. Ah. mais en tout cas daal macha allah ndax bëri na maar bi daan ko. Mhm. bëri na ak ay champion daan naa mag a mag a mag a mag. macha ah, allah waaw loolu dañ ko. kan Diène laaj ko Diène fekk naa ko fu ne. man Fadima comme li gars yi di wax rek man j'ai pas froid aux man du ma nit koo xamante ne complexe la wala mooy am sens interdit fenn man du ma complexé parce que bu bu dee li ñuy dund muy làmb man nit mënu cee jaaxal. non dama xamante ne duñ ay complexe ci làmb quoi duñu ay màgg bëri wala yooyu noonu ñun li ñu waroon def ci làmb dañ koo def dañoo dañoo débuté nekk xale di jóg ci làmb tolof tolof nag day am ci nit. mais cuune duñ ñu wax ne dañoo dañoo cuune daal waaw. sa naa feeñ ngay wax. non xam nga boo daanoo rek cuune nga fii actuellement boo daanoo ci làmb rek cuune nga. après nga bëri kii. mu wax waaw. te fëgg la ndeysaan am na ku ma woowoon ba ma ñëw mun ne ma moytul fëgg la takk la kooku dama wax mu ne ma moytul fëgg la takk. ñoo bokkoon loolu la ma wax rek nitu làmb la nag kooku du ma wax turam quoi maa ngi ci loolu xam nga mu ne ma moytul fëgg la takk la mën na ko waay yow kuy contact ak ay say deux xale yu ndaw ëpp doole fëgg fuuf mun ko di contact ak gaskel ñoom gaskel di la takk nga ciy génn ah ay fëgg dalaa mën a takk ba man loolu laa philosophie boobu laa doon doxee waa mais nag nit ak na mu yàlla dogal mu am ndam sama kaw noonu la demee ma jóge foofu jël maama ma ko posé laa yow xam nga destin mooy boole ay nit parce que man yàgg naa bëri te mosuma dugg Lam Sarr man ba ma jógee Fatick sax écrit Lam Sarr laa doon rêvé ñëw. non parce que moo boobu moo ñu gënoon jege moo nekkoon écrit bu doon toj tamit xam nga noonu la demee mais nag tey jii ñi nga war a bëral sa carrière force da ngeen di bëree loolu yàlla moo ko def yàlla moo tuddoon fenn ne dinaa bëre ak diw ak diw. waaw lamb ju am coow. kaw kii bi. tarkindaa bi tarkindaa bu ndaw bi. tarkindaa bu ndaw bi doomu ndey si tax waaw kay am ndax. waxoo Mama Lamine. mais combat bu nag du ma ci wax de. ak ah, combat Mama Lamine ak Jokkee. non du ma ci wax de. non combat Mama Lamine. non du ma ci wax Fadima ko combat ak Mama Lamine nga toj àdduna. non combat bu mu du ma ci wax. non si Jokkee nag am na ñoo xamante ne instant bi ñu ngi suivre si wasaare loolu dana la yitteem. Hmm. benn bi laa la da nga laaj da nga dugg euh, lantaa. dugg fa dugg fa duggaat hmm. sa combat ak Mama Lamine pourquoi Mama Lamine. waaw Mama Lamine nee naa la làmb moo ñu boole woon. Hmm. waaw. Hmm. falaa yem de. léegi làmb moo leen boole non gis nga joxe dañuy waxtaan quoi. ñoom wax nga wax. ñu gis combat bi dafa jeex sax combat bi am coow. waaw mais combat bi. parce que gis nañ ni. lu bari yow après dégg nga problème yi ciy am. Mm-hmm. sa combat ak Maama Lamine ba tey. Mm-hmm. mais sa combat ak Maama Lamine pourquoi ma jël Maama Lamine mm-hmm. la mu tudd adversaire bi dem benn instant dafa ëpp doole. dafa ëpp doole. ëpp doole maanaam. parce que buzz bi ñu ci amaat. kan moo ci amaat buzz. ñaar. non non moo ci am buzz. man Maama daf ma fekk ak sama buzz. xaw ma sax man daal en tout cas gis naa sama boobu suuf jóg ànd ak samay mbokk. ñu ñibbi defaru jiwaat waaw. li nga li ngay wax kay mooy c'est-à-dire. non xam nga nee naa la tey jii du am na loo xamante ne am na yenn détails yoo xamante ne jaru ko que nit ki du ñàkk ba pare di ñànki. xam nga ma wala loolu bi la fanaan waaw. noonu. Mhm. nga ñëw rek xam may sa bopp suuf gi. def waaw loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon sax suñu wareef keroog bés boobu. waa bés boobu loolu loolu moo mënoon am ci ñun sax mooy suñu jaamu. waaw ndax waxoon nga ko quoi. waaw bés bu nekkul woon. Mm-hmm. bés boo amoon rek. waaw c'est-à-dire yow avant combat mm-hmm. euh, la woo say euh, say kii mu mm-hmm. euh, samay sëriñ wala yooyu noonu. waaw xam nga xam nga Fatima. des fois yéen comme ay journaliste di ngeen toog mbër muy wax la nga xamante ne sax amaana nit ñi nit ñi ko nawoon dañ koy bàyyi. te ku nekk tey du ma dem ci sëriñ ne la kaa ñu ànd yow journaliste lay filmel yaa ngi may dégg li may def wala yooyu noonu te làmb moo baaxoo loolu te mbër mbër mbër nga dajeeg sa moromu mbër boo ko jàppee mystiquement xam nga bu ñu la jàppee mystiquement xam nga du dëgg mais mystique ak làmb ñu ànd parce que dañ maa fay fay ko jour combat boobu noonu yàlla dafa ànd ak maama Lamine ci lépp loolu dañ koy sante yàlla waa ci lépp maama Lamine keroog moo tuus moo bëre moo daan xamante ne waaw ma toog sama chaise te dama yàkkamti woon sax combat yi jeex ba ñibbee. parce que nga doon souffrir en silence nag mais du loo xamante ne xam nga dañu toog ñu tey jii ñi nga xamante ne ñooy suñuy nit xam nañ lu bari combat bi combat boobu noonu ay nit Sénégal dañ ma doon woo ne combat bi nii boo ci génnee rek ndaanaan nga ay nit ñoom dañ lay yéene jàmm parce que dañuy dox di dégg xam nga la monde est petit te sénégalais sénégalais bëggul ku néewal nit doole. kon dañu bien sûr waaw mais nag sant yàlla daal. wa lépp tout maama Lamine tamit nekk nit ku baax woo na ma téléphone waxtaan nañu. yaa may dégg moo euh, Balla Gaye junior moom tamit Balla Gaye junior sax moom mu njëkk a woow xam nga. taqe waaw ku baax maa ngi koy passage. waaw kooku champion la waa jooju. waaw ah, après maama Lamine woo ma xam nga expliqué daal mais. ñu ngi ñaanal ndam li xam nga di ko. tey kon yoo xam euh, ko dañ laa oto bi ma yéegoon sax fii yem. eggul station Kër Massar oto bi ma njëkk a yéeg. eggu ci. waa mais ay jullit lañ. dafa tax ñu dee. taxul ñu dee. waaw loolu ci signature sax man xam naa ko ci signature contrat yi barki Serigne Saliou Mbacké li xew ci làmb jooju duñ toog fii daan lii ak lii ak lii mais loolu ñëpp nitu làmb yoo xam ne yàqaluñu dara nag daf ñoo yokku sax ndax tey jii xoolal am nañu ay nit ñi nga xamante ne pare nañ pour jàppale ñu. barki Serigne Saliou ay nit ñoom na sax amaana daanu woon wax ak ñun ay nit ñi nga xamante ne tey jii parce que nee naa la sénégalais sénégalais bëggul ku néewal nit doole. tey jii am na ñoom ne bu ñu génnoon attaqué la fii dinañ dinañ dégg lu mel ni xeme noonu la demee ay dañoo sosoon hmm. ki nga xamante ñi nga ni dañoo sosoon ki nga xamante ni mooy jokkee hmm. ko trahir xam nga tey jii mënuñoo toog naan diw def na lii wala diw waaw mais loolu ñoom la concerné mais après yow def loo wu ma mais am nga droit tey jii tàllal ku nekk sa micro yow fi yow mi nga xam ne journaliste nga tey am nga droit tàll ku nekk kum la neex sa micro comprendre nga noonu la demee loolu àdduna la passé na tey ñu ngi ñu ngi koy toog fi di ko nettali waaw làmb mais làmb moo bindoo noonu loolay làmb nag loolay charme làmb. Hmm, hmm. uh-huh. kan maama Lamine. maara hmm. sax. Hmm. ñaanaluñ hmm. loolu ñoom la concerne maara duñ duñu yàlla maara yooyu duñu yàlla. def lu dara. defuma dara maara yooyu duñu yàlla. maara yooyu noonu duñu yàlla de ñoom dañuy ñaan yàlla yàlla mooy def. gis nga faariment fii lu am yàlla la neex ñun dañuy sabablu rek parce que xamuñ ndax dinañ yeewu suba sax. yaa ma de maara waruñ de seen xel moo gàtt te duñu yàlla. li ma wax chaque man bi may dugg ci làmb tàgguma kenn te waaw daan maama Lamine daan ma sax duma tax décourage ci làmb kon man nekkatuma champion champion ci bopp la barke Sëriñ Bamba te esaan toll ni ci lañ gën a nekk mbër nee naa maama Lamine daf ñoo dañu daf ñoo def mbër ay mbër la ñu de mais maama Lamine dañoo def mbër plus parce que léegi nekkatuñ ay ngaaka bu baax comme wu noonu ba mu paasee barke Serigne am ci lañ gën a xam suñu capacité parce que am na nit ñi nga xamante ne tey jii ci lañ ñu gën a jege ñooñu wallaahi azim ñu toog suñu ruxu nag di defaru chaque jour sax dangay ngay dégg lu bees chaque jour te combat xoolal décembre la chaque ngay lu bees chaque jour ngay xam ay nit chaque jour dañ la ci wax la nga xamante ne da nga naan déedéet sax mais man moom dama nekk nit ki nga xamante ne man ñi ma war a waxal rek laay waxal man du yàq deru nit aw ma sax jotu toog di wax ci nit l'essentiel ñun ñu ñi nga xamante ne ñooy mbër mbër yi nga xamante ne dañoo bokk benn drapeau bi ñuy représenté ñun ñuy waxtaan suñu biir di diisoo xam nga di waxtaan di sottante xalaat di demalante di dëkkalante boo ko ndey boo ko bàyyi. kon combat boobu premier combat bi tax mu hmm. hmm. hmm. ah, su ma blessé su ma su woon. man mu waaw man dinañ ma fay yow combat lañ ma fay sax mooy loolu noonu ma préparé combat ni mu méttee ñëw boo waree a bëre di yàq ay combat loolu du xel loolu nit kuy xalaat waru ko def yow lan moo gën a métti tey jii nga waaj fii ni mbapat jóge fii paas dem ba Saalum wala nga dem ba ci île yi yéeg gaal nga xam ne mënoon na suux nga dee nga dem foofu bëre ji ñu daan la premier tour nga ñibbisi kon benn combat arène du yàq suñu làmb. waaw pour lan. <laughs> waaye yow docteur yi dama leen xam bañ may defal ay faux certificat médical nañu wax ne dëgg. bu fay rajo docteur man xaw ma docteur aw ma mbokku docteur yenn yi rafetul sax nit ki su xam nga boo nit ki nga xool sax parcours am quoi nga xam ndax kii nitu caaxaan la wala kii du nitu caaxaan noonu la demee man mosuma yàq la mosuma tardé arbitre man CNG mosuma dagg. mukk li ñoom li ñuy tere dama koy dama koy daw man ñoom man du ma tardé du ma surplus du ma ko def. man benn làmb lañ mës a dem sax gars yi di xeex muy sama combat ak Maama Lamine bi te boobu darta ñaay ñoo yëngatu. darta ñaay non darta ñaay yëngatuwuñ sax leen sax ni mu demee la parce que dañ leen doon seppi. Ah. dañ leen doon seppi di leen génnee stade bi. wax ni. moom loolu boo see dëng nii toog moom xam na te pourtant ñun defuñu dara ñun suñu gàllaaj lañ yoroon di wërale lii géew gi. après yow li li dal combat kan kan lañ sotoon li li yàqu combat Alioune Seye beeg jariñu uh-huh. loolu ci man la fekk baax man sama combat ak Maama Lamine. arbitre taxaw na nii waa ji ñëw ci butéel bi nii la ma ko sottee nii arbitre da nga koy gis mais ñun duñu suñ doon yàq làmb wala ñu bañ defe loolu lañuy def ñun. xoolal xel du jëriñ lu dul xalaat quoi. waaw. nu mu demee parce que. Mhm. Mhm. mu demee. dem su guddi gi la woo téléphone dem su guddi eh suñu relation dara nekku ci dara. waaw xam nga nit ñi ku nekk da xool li la arrangé maanaam làq doom dóor doom dafa am nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy déranger man sama ànd ak Keba da doon déranger. dafa xam ñu bari ñi nga xamante ne da leen doon déranger xëy na nag jàpp nañ ne bërëb bi nii mu ngi xam nga mu ngi ak moo lu bari wala dañoo jàpp ne ñoom bu jegee Kéba man dama leen di wala yooyu noonu man loolu Kéba dunu maa moom loolu Kéba dañuy ànd te yàlla tax moom xam na man xam naa ba Kéba li ngay dégg coow mos nga dégg ma ci moom dara. Hmm? du ma genre nit ñooñu Kéba jàmm lañ seex ak salaam. parce que Serigne Saliou Mbacké jàmm ak salaam ci lépp lu mu dugg yàlla defal ko ci ndam du rëy ci barke Serigne Saliou Mbacké CNG dañ ko koy jox. d'accord waaw. Kéba dafa yàgg ci làmb Kéba mooy làmb yow. Kéba bu téyewoon CNG làmb weesu na fi. waaw yow Kéba dina bëgg benn business moo ko koy soxoree. kon man du ma nit. barki alxuraan man su ma yoroon ci CNG nii du ma hésité waaw te ministre bi loolu la war a def ma daar ba parce que làmb yi fu xale la aussi da koy jox xale mu gérer kee ba xamante naa mbëri yaa may dégg xam na responsabilité bi nekk ci CNG te aussi moom gérer na marketing gérer na gérer na entreprise moom xam na nu ñuy gérer lool nañ ko ko jox nañ ko ko jox nañ ko ko jox mu defar làmb ji barke Serigne Saliou waaw. waaw kii baa ngi fi palaasu xaal bee ngi fi ci soo génnee fii rek gaskel moom ma àll terrain bi nekk fii ci kaw tali bi fa sotti sama xaal ko quoi waaw Fatima. ñun yàlla moo ñu natoo sax tur yàlla moo nattu tey suñ tur suñ jëmu yeggu fa mais nit ñi liñ foog ak li am bokkul nit ñi liñ foog mbëri mbëri yooyu noonu ñuy wax noonu boo ñu yóbboon géej ñu rag barki alxuraanu karim ñoom ñoom ma daan leen te ku nekk ni ma lay daane du bokk ni may daane sa moroom waa loolu seen gis-gis la Kër Massar laa dëkk. yaa ma dégg defal micro trottoir Kër saar nga laajte parce que nit ki tamit yaa ngi ma dégg ñu nga dëkkal ñoo la mën a jugé mais ñooñu xamul xamaluñ ma dara làmb la ñuy daje. te xam nga tey jii nga laaxatu ci ginnaaw écran bi nii su ma neexoon tey jii moo wax Balla Gaye lu ma neex wala moo wax tey ji Modou Lo lu ma neex parce que da maa fekk sama kër mais déedéet ñun joobewuñ noonu te làmb la aussi du dëgg mais ñooñu ñi nga xamante ne tey jii ñooy su ma rakk ci làmb ku ci mel ni ay Boy barki Seydina Muhammad man ñi ma daan ñi nga xamante ne ñoo ma daan ba doon joxee Boy Seye wala gaskale da leen di damm dañ leen di dam parce que tamit ah, est-ce dañ naan ah, kii nu mu xam nga tey boo daanoo gis nga Boy Seye numéro un tolloon na guddi nii. yaa ma dégg ku jógoon na jox boo seet bi muy daan sita lan la sita doon wax signature maam maam sëy nan la mujjee kan moo ci gënoon néew doole ci ñoom ñaar bi muy daan jën kay rek kan moo ci gënoon néew doole kan moo nekkoon mag bi. gis nga yooyu ñu wax te ñooñu ay moroom lañ ñooñu ku ci génne sa quarante boo deful jugement yow normalement làmb da da da la fay war a jël parce que xam nga li sama problème jànguñu. da nga ciy gis koo xamante ne 1980 lay juddu comprendre nga ñu defal ko jugement 96 non sérieux noonu la demee dañuy retaillé chaque jour laqatu ci ginnaaw kii te kooku mbër boobu boo dajee moom di ko bëgg a lekk di ko wane da nga ko bëgg wala yooyu noonu looloo yëfu tàppet ñoom ñoo may laaj ñoom ñoo ma soxla mais man soxla ma leen te man maa jar man maa daanu xëy promoteur di ma di ma jox combat barki alxuraan. ah <laughs> li ma lay wax nii. am na promoteur yu may seetaan. sa combat ak mobile la. maa koy dégg de. Ah. Hmm. Hmm. waaw. xanaa déggoo li ma la kii yow. ñu dafa ci lu ñu jógee. te fi ñu teg suñu bët ci làmb. dañ fay yegg bu soobee yàlla. ba na incha allah. ren moom taxul ñuy wax parce que ren gis nga li lii li lëmbe àdduna waa balaa beeg yooyu ñun ren dañoo nekkoon ci préparer combat ah booy sëy ak. Euh, boobu. combat boobu noonu tous tous dara. kooku day tëdd. le barki alxuraan day tëdd. foo ko teg. mënoon na am ren. mais foo ko teg. booy sëy day moromu gàkku. loolu bi de la fanaan. mais booy sëy de moom mënul bëre. Ah, kooku séeréer da koy koŋ. benn lan. boo séeréer xanaa moo dafa bàyyi sax bëreem. mais boo séeréer ñii nii nii nii nii nii da leen waroon di damm. parce que am na bëre boo xamante ne day damaate. wallaahi azim da leen waroon di damm ñu ne mbër mi damm na diw. loolu sëy moo ko war a def waaw da ko war a damm wax naa ko. Euh, ay gaynde yu jigéen waa dégg nañ ko muy talaxu moom du du nekk sax muus. moom moom ginaar bu jigéen lay doon. wan mistake yow ñun ñooy borom dini ñun entraîné lañ xam. bokkuñu boo séedee ak gaaku bokkuñ pël pël ak laadum la. lan ne bokkul la pël pël ak laadum la. bàyyi ci xel. Eh, mais ñaanal yàlla boo séedee mooy ko yàlla mooy ko ndam. waaye gaaku euh, nañ. instant toll ni sax ñun xam nga ci benn phase lañ nekk ne phase du defaru. ok defaruwaat defaruwaat ba nag ñaabu. côté musique. bépp waaw ko musique balande jokkeel ma jokkeel ba ma doonoon. Mm-hmm. non faaw ma doonaat ko. maa ngi ci waaw maa ngi ci maa ngi ci samay mbokk. waaw na ma mën loolu instant toll nii. Mm-hmm. waaw. noo gisee mbër ak CNG. waaw ak mbër xam nga tey jii dafa mel ni kër ak borom kër ga. te borom kër moom lu ko neex mooy am ci këram. mais arbitre def est-ce que d'accord euh, mhm. ñoom lu def. assurance comme ñoom ñaata at ñaata at lañ def ci laamu jooju ñoom. ñoom man moom Malick Malick moom sama lonko la. maalik moom sama xarit la Malick. franchement parler. waaw mais xam nga tey jii ñoom du ñu ay analphabète Malick ak Sitor yëpp am na la nga xamante ne jàng nañ ko gis nga wax ji bari na ku nekk yaa ngi ci sànni sa grain de sel mais gis nga dafa am loo xamante ne ci début bi la tegale bu jubee te daanuwul ba jiitu moo jub parce que tey mënoo maa embauché fii wasaare bii nii te tegaloo ma ay conditions yu leer gis nga nañu waxante dëgg làmb ak coow ñoo ànd mais tamit booy coow da ngay coow lu jar a coow. du dëgg. non xam nga man xaw ma conséquent xaw ma xaw ma causé. waaw waaw waaw. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. mm-hmm. loolu te mais coow loolu kese moo tax ñu dàq leen. non ah, dañoo ah, grève parce que dañoo bokk leen yokkal. ah xëy na mu amoon daal loolu daal man daal li ma la mën a xamal daal mooy. lan lañ leen di fay. Amacir euh, chaque bu nekk diiru bu nekk. wala làmb ji. 52000 lañ leen di jox ñoom 4 arbitres comme 5 arbitres ñoom ñoo koy séddoo. Hmm. kon bu ñu mais xam nga bu njëkk ba passion la woon quoi. ngay arbitre làmb passion la woon 2500 lañ leen doon fay ci àll bi en gas. 2500 lañ leen doon fay par làmb de mais léegi ñoom bu ñu demee tey xam nga ba ñu leen di fay loolu loolu tamit ñoom la neex parce que man boo ma fayoon sànq. ñii seen combat du dëgg CNG nan la mën a xëyee tëb tëb rek dàq nit nii nii nii nii te tegu ko fenn. non man moom. li hmm. hmm. euh, man moom loolu maîtriser wu ma ko quoi wàllu CNG. ah loolu la xam nga tamit ñoom la neex quoi. Ah, loolu ñoom la neex. arbitre ñoom ñoo ñoom la neexoon ñuy ñuy fay ko loolu Malick Ngom maa ngi koy nuyu au passage kooku sama xarit la nit koo xamante ne man dama ko estimer man man Malick dama ko bëggal sama bopp. waaw mais nag CNG mënoon na leen gracier xam nga ñu toog dialogue waxtaan xam nga dafa laat parce que làmb mbër mënul bëri sans arbitre te arbitre yooyu ni ñu xamee làmb pour nga amaan ñeneen ñu amee noonu expérience tamit du yomb du dëgg mu ngi noonu daal CNG na na leen woo. ñu waxtaan bu mbas mi jeexee xam nga ñu defaraat suñu boobu ñu xoolaat yaa ngi may dégg xoolaat bu baax nu ñuy def ba suñu làmb avancé moo gën xiiro bi ak nga parce que jotagul loolu essentiel nañu xool nu ñuy defaree làmb sponsor yi ñëwaat mais pas dàq ay arbitre wala yooyu noonu loolu moom man rafetlu moo ko daal waaw. Euh, waaw côté boobu man dafa am sax la nga xamante ne dama ci dama ciy des fois. am waa ji jël CNG ñu kii ko may al. waaw par vote. yaa ngi ñu jël sam waa ji Kéba teg ko fa mais nii nii nii nii nii nii Alioune Sarr teg ko fa dafa am maanaam kilifa bu ko jiital teg ko fa. lépp daal na rafet parce que yor na ko defar na làmb aussi Alioune Sarr ku wax si lii wax si Alioune Sarr defar na defar na ko parce que tey jii yenn kii yu bari gisatoo ko ci violence si biir géew beeg affaire yu bëri tey jii wàññeeku na parce que mbër bu nekk yaa ngi sóoraale ñu aj la wala yooyu noonu waaw mu ne nag vingt cinq ans de carrière ci moom moom na xam nga rek dem noppalu ko ji naas quoi waaw. Balla Gaye mhm. ah, mhm. man Ama Baldé. waaw. non Ama Baldé moom avant ma xam nga Ama moomu njëkk a bëri arène. man dafay jor benn style ba nga xamante ne. sama style la quoi moom xam na loolu sax moom amaa man amaa mooy sama idole man loolu nëbbu ma ko kenn moom laay moom ci moom laay roy man Ama waaw. bi mu gëm boo yow amaa da koy dégg ci yenn détail doo ko dégg mu ngi ci ruuxam amaa rarement ngay dégg nit na gis naa Ama boo gisul entraînement waaw loolu rek la ma neexee ba pare damay inspiré wu ci moom daal mooy sama idole ci làmb loolu ñëpp xam nañ ko waaw. koor gi waaw koor naas ñu ngi koy gérer de. waaw. soxna see ngi fi nag da ngaa fàtte loolu. man moom ci mu ne nii. man waaw. soxna ngi fi waaw doo ko gis de. <laughs> lan lay xaajoon ci kan. ak lan. yu sedd yeeg non ay kéeg ak yooyu sax. da lay teel a suurloo mais ginaar dafa gaaw rees waxuma la ginaar yi neen ginaaru olof waaw waaw poulet du pays <laughs> waaw noonu la demee waaw. li may tàggatoo mooy farima di leen remercier bu baax a baax di leen wax tamit bon Kër Massar mbool Kër Massar mbëri Kër Massar yëpp dañoo dajaloo yaa ngi may dégg organiser li ñuy wax cent pour cent Kër Massar mbëru Kër Massar yëpp nag laa la ñu ànd seeg ay ay gars yi nga xamante ne dañoo jóg pour jàppale mbër yi ku ci mel ni ay Bira ay président Pape Diouf xam nga trésorier gars yi noonu xam nga ay King gars yi dañoo jóg uniquement pour jàppale ñu léegi ñun ñu ngi ñun ñi tamit mbër yi dañoo bokk ndey bokk baay ku ci mel ni Boy Seye 2 parce que avant gars di taxawul loolu Boy Seye 2 suñ jóg ci di ci wax di ci waxtaan gaskal mais toog xam nga lu ma la ay ñoom boulon gars yi bëri nañu léegi moom Kër Massar soo bëggee dégg-dégg. buñ dugaatee ci làmb. lii du cent pour cent waxi nii de kalaw kalaw yi de tey man moomatuma sama bopp Kër Massar tey fu ma tourné gaa dañ lay contrôler boo amee combat seen bakkan lañ ci teg bu baax a baax barki Serigne Bamba dañoo jóg daal pour jaablo parce que tey jii fi ñu dégg yeneen mbëri Kër Massar waxuma la mbëri de mais yeneen gox yi sax Kër Massar dañ ko war a dégg fu ko raw loolu suñu objectif di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw su ma limee damay juum xam nga sant naa gaa yëpp sant naa sama baay faale sama dara ñaay ñëpp sant naa leen yaa ma dégg ah, Père Alioune Sarr CNG bi jël ko nga jox sama waa ji Kéba Kanté noonu la demee Fatick Fatick Fatick jëm kanam non Père Alioune Sarr ku baax la. non yow est-ce que da nga koo na jël CNG bi woo Kéba mu ñëw mu yëkkati affaire yi jox ko xam nga mu gérer làmb ji mu muy cote sa Kéba toog ci ginnaaw naan ko fii defal lii ak léeg-léeg waaw senegal yàlla na fi jaamu yàgg coronavirus sonal nañu corona non sonal nga ñu ko nga may ñu jaamu dem sa yoon xam nga àdduna bi ñëpp am jaamu ñëpp am tawféex ñu ngi koy ñaan ci naa mu Muhammad ci barke Serigne Saliou Mbacké sant nañ leen gërëm nañu leen. di ko bëggewaat bu baax a baax moom jokkeel bu Fatick bu ah, nekk koo xamante ni moom tamit suñu doom day la suñu xarit la parce que luñ bëgg rek day yomb ci moom di mu wax TV damay ah, wax daal ñu wax kii Arma da nga xiif moo tax pour contre leen di leen ah, bëggee nañ leen yéen ñëpp ñëpp ñëpp dama séeréer bu naagis lay fatigaalu ah, Basirou Diouf di bëggee waat bu baax a baax di la baal àq di la baal bëggee waat bu baax a baax naan yàlla sa jàmm yàgg bu rax naa ju rafet. mais Fatima kan mooy oustaz. Oustaz kan la Oustaz jàngul ah. di jox ñëpp ah, dig daje ci benn émission li ma lay wax rek ñu naan leen mbër ak diine si wasaare la bu kese xewee ngir yàlla nag bu kenn pirate jàpp leen ci rek wala bu ñuy toog di xalaat boobu yeneen kii wax naa leen nag commencé egguñu nag dañuy foofu. eh kuppal foofu. affaire bu garaaw. <laughs> loo gisee wasaare. non wasaare moo koy boom yow foo nekk ñu nga fa ñun ragalu ñu róor ragal féere day xaj a wërsëg yow foo nekk ñun boobu la ñuy seetaan wasaare yaay boombu yaa koy yëngal de noonu la demee mais jëndal leen Farima oto nag